xam nga gars caatu caatu yoo xam moom laa bëgg a jox Doudou Sané. borom neuf points yi non naa ko rek. gars jox nañ ko Doudou Sané jox nañ ko Doudou. jël rek. mu rempli contrat bi. waaw incha allah. noonu la yoon lewu yi la rek fu amul lewu bi am lewu bee. noonu la demee nag <laughs> bu jeexee rek jeex na. champion mag bi ah. jàmm ci rek. ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi. c'est le sport qui gagne. barke alxuraan tey ñun ñoo mën a far suñu biir ñun bëri. kenn mënuñoo jaxase du ménager du promoteur bu sax gars yi jàmm ci gars yi jàmm ci Sénégal waa Yoff maa ngi leen di bëggee caatu Yoff a ngi nii caatu Yoff a ngi nii jàmm ci baar ak sama copain sama copain moom li ma saaga ci toog bi ma dagg la ma sonn sama la saaga naa